dem selon sa wol bi nga war a dem kon tey ku ciy wax ay demande milliards kon defe naa ne da nga xamut li tax ñi ma dégg ñuy wax naan nan la eggan dale King Fahd di di ñëw nuyu sëñ bi delluwaat ñooñ ñëpp xamuñ li ñu wax man ci mbir mi laa gisee ne ndekete Sénégal bu loo gis ci réseaux sociaux yi rek bu ko waxee ci nit bay boo nga def ndànk ba xam ba xam ndax dëgg laan déet ndax ñi ngi demee la ko le keneen kii wax ñi may wax di ma taxé naan ay politiciens la nangam man politique ba ba ñu ma ko ndax Euh, boo ko tegee fa ko war a teg dara nekku ci xanaa kay nga ànd ci ak naafeq ak ay parparloo euh, ak itam maanaam euh, tax doo seet dëgg doo topp dëgg ñu koy def man waxuma leen dara waaye man su ma doon politique ci boppam du ma nëbbutu kenn musta gis man foo xamante ne bii maanaam nee naa ci benn parti la bokk wala fenn laa politique waaw politique yoon ma ci mas a jaar tam foruma woon damaa kontar waaw loolu ku ci soxla itam ma moom mën na cee dem ñaar ba mooy fu ñu ma déggee ma wax diine lañ songu donc ñi ñu may topp ñëpp ku ci am benn déclaration wala benn taxawaay boo xamante bi man taxaw naa naan wiiw kenn nga génne ko won ma ko waaw kon man fii ma nekkoon di fa liggéey Cheikh Sidi Mokhtar 2017 ci ndigalam lañ ma dugalee affaire étrangère ma nekk conseil ci ambassade bu bu Sénégal bi nekk Abu Dhabi 2022 tam sëñ Mountakha lañ woo nit kilifa du la dégg njaboot na dégg nga di ko dooral laaj ko kenn ci njabootu sëñ Touba dégg nga ñu dugal ko ci diplomatie bi def ko ambassadeur Cheikh Modou Mountakha man moo ma tànn kon bu santee président Macky Sall mi nga xamante bi ci loolu ci ay loxoom la jaar ñaar yëpp ci ay loxoom la jaar ba pare waaye man Cheikh Modou Mountakha laa ko sante ndax jékki-jékkiwul tànn ma déedéet sëñ Mountakha la tànnloo sëñ Mountakha tànn ma ñu bari xamuñ loolu ba tax lu ne ñu ma koy taxé man bañu ma ko fa ma nekkoon di fa liggéey itam ba fa nekk di fa kenn ku ne xam na ne man mbirum politique ñoruma duma xool kenn ngir sécularisation politique ay citoyen sénégalais laa xam ne te loolu ñam nekkoon fa may liggéeyee xam nañ ko am na fa ñu bokkoon ci beneen parti ñoo xamante ne bii ñi ñuy wax naan catalogue nangam ba ma dikkee fekk leen ñu bunduxataal leen eh, mettre leen au frigo man ba ma dikkee dama leen a delloo kenn ku ne ma jox la sa gëdd malgré maanaam bu wuuteeg la nga xamante bi moom la yenn kilifa yi xalaatoon mais dañoo respecté sama décision xam ne kat man sénégalais képp laa gis gisuma ko bokk fenn ba mu des nag koo xamante bi liggéeyam da boole mbir politique loolu fa ma nekkoon ku fa laaj loolu xam nañ ko waaw te nguur gi fi nekkoon itam dafa respecté sama principe bàyyi ma ca loola kon loolu euh, man mooy tontu ñi nga xamante bi fu ne lañ may dëkkale lu ne la ñuy wax te lañuy ñuy wax xamuñ ci dara euh, toujours nga dégg ñuy wax loo xamante ne bii xamuñ ki ñuy wax ci moom kan la xamuñ li ñuy wax nan la demee ma leen ñaan nag ñu gën a maandu te gën a am reteni te xam ne kat maanaam euh, euh, tooñ dafa baaxut ñàkk xam-xam baaxut parparloo baaxut nit dafay war a maandu ñaan naa yàlla nag su ma ko seqatoon nag ay nit ñoo xamante bii maanaam de basse classe yoo xamante ne bii réseaux sociaux ci boppam lañ defe ne lu leen ci neex ma nañ ko ci manipuler lu leen ci neex mën nañ ko def nañ arrêté nañ arrêté te xam ne feneen la ñu réussir loolu ba des fii waaw njëkkuñ ma ci communication kënuñ ma koo xam dégg nga te defe naa ne maa ngi leen di wax ñu arrêté moo gën ci ñoom ñu arrêté waaw man noonu wuma kenn respecté naa ñëpp du ma jàll kenn duma ma kenn kon nag bu fekkente ne bii fu ñu làmb dégg nga mën naa ne sax dégg nga yàlla maanaam bañ leen a far am na ci ñu commencé gis yoo xamante ne bii sax moom euh, maanaam euh, doonuma ca dara waaye nag nañ xam ne yàlla moom bëggul kuy tooñ yàlla dafa bëgg ku maandu ndax yàlla dafa maandu kon maa ngi jégaluwaat ñëpp ndax. bu amee ñu bari ñoo xamante bi bëgguñ moo waxaat ci ci mbir mi waaye am ñoo xamante ne bii encore dëgg lañ bëgg di xeñtu dëgg da mel ne dëgg gañ amoon dafa am ñu koy bëgg a xajamal ci ay manipulation ma xamal leen ne manipulation du jàll ci man waaw du jàll ci man ndax sant naa yàlla xam naa li ma war a wax fa ma ko war a waxee ak na ma ko war a waxee may ñaanalal Cheikh Mourou Mountakha yàlla bàyyi ko fi mu yàgg fi lool te wér di ñaan yàlla mu defal ñu feex ba màggalu 2025 lépp luñ ci bëgg ci ak jub ci ak euh, maanaam euh, yéwén yàlla defal ñu ko te ñu ànd ko Cheikh Mouhamadou Mountakha asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.